salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki àdduna ñu ngi leen nuyu ah ni ñu leen daan nuyoo saa ne di leen bëggee di leen kontaante di leen jox li nga xamante ni tey saa ne yaakaar naa mooy li ngeen di bàyyi xel muy le site internet Sénégal Buzz yaakaar naa ni àdduna nga koy bàyyi xel yaakaar naa ni Sénégal nga koy bàyyi xel ba taxit li ma leen wax rek ah saa su ne maay dugg ci ruq yi di leen génneel ñenn ci ñi nga xamante ne ñoo di ay ndaanaan di leen génneel ñenn ci ñi nga xamante ne ñoo di ay champion ba taxit tey maa ngi fii nga xamante ne yaakaar naa ku tuddi fukki penc ak ñaari ci ndakaaru boole ko fi muy dëkk bi nga xamante ne dëkku lébu la yaakaar naa ne kenn mënul tudd dëkku lébu tuba fi ma fekk fi doomu lébu bu mag ah muy xale bi nga xamante ne yaakaar naa mooy Quench mbokk Sénégal boobu tey maa ngi biir Bargny Quench nuyu naa la waaw mais fay naa la jàmbaar di la bëggee di di waa Bargny ñëpp di siyaar ñëpp Eh, di baalu àq ñëpp si julli gi nga xam ne moom lañu jóge muy événement Tabaski ma leen di baalu àq di leen baalu àq di wax ne ne man képp ku nekk Bargny daal maa lay eh, nuyu di la nuyu gën nuyoo bi gën si nuyoo muy asalaamaaleykum wa rahmatulah di siyaar ñëpp di nuyu fi ma bokk muy Tiwaawan may nuyu di ñaanal suñu xalifa général bi yàlla guddal fanam yokk yokk taxawaayam wéral ay cëram di ñaanal waa Touba waa Yoof waa Njaasaan Touba fu si mel ni ñoom Fata ma leen di bëggee chaque instant damay fàtte sax di leen bëggee ah. ma leen di bëggee ah ku mel ni Modou. waaw noonu la demee Modou ba États-Unis waaw maa ngi siyaar di bëggee Touba gépp di bëggee Ndiassane ne foofu dama fay dem ñu defal ma teraanga di bëggee suñu xalifa bi tamit Ndiassane ma ngay ñaanal yàlla yokki leeram bàyyi ko suñu kanam bu baax. di bëggee waa Thiénaba waa Kaolack tamit. di bëgge waa eh, waa kër Sénégal si Saad bu ñi nga xam ne eh, suma père As Gueye mhm. foofu la bokk ma ngay siyaar tamit bu wéer a wéer a wéer ak Mara doomam bi ak Moussa Henri Gueye mhm. eh, di bëggee waa Yoof tamit lëbu yi ah. leen bëggee bu baax a baax a baax di di bëggee waa Yoof di ñaanal xalifa général bi tamit yàlla bàyyi ko suñu kanam bu baax dëgëral taxawaayam bàyyi ko suñu kanam bu baax kilifa diine kilifa aada yi nga nekk Sénégal yëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla guddal seen i fan dëgëral seen taxawaay ñu jiitu yàlla yokk seen barke Eh, di bëggee fukki penc ak ñaar yëpp di leen nuyu di siyaar mbokku lébu yëpp. Mhm. du nuyu fukki penc ak ñaar yi yaakaar naa loolu la ki nga xamante ne moom la ko woon ci wax du nuyu mbokku lébu ah ba tax it tey dama ñëw fi nga xamante ne mooy dëkkuwaayam fi nga xamante ne tey bu waree génn tey day mel ni tey ndaanaan ay génn fii dëkkam donte ne fi nga xamante ne foofu la dëkk Quench ak waa Bargny. waaw Quench ak waa Bargny jàmm lañ Cheikh ñëpp yéen a fii lañ ma koy joxe bari moom wax fa dëgg yàlla aw ma seen fay mooy suma ambition mooy li ma wax rek man damaa créé benn projet boo xam ne projet boobu mu ngi tudd eh, Bargny développement projet mooy eh, su may nuyu eh, ki nga xam ne mooy Abbas ma koy nuyu di ko di ko wax ne ne grand ñu nuyu si projet bi incha allahu rabi à bientôt rek si kanam incha allah dinañ ko gën a fësal parce que tey projet boobu projet boo xam ne si social lay dox si social lay dox ah ñi nga xam ne dañ néew doole projet yi moo tax ma créé ko eh, jot naa fi def benn lamb jël fond bi ma si am tamit yóbbu ko po santé ba comprendre nga am na yeneen édition yu ñu war a dóoraat mooy bëgg nañ dem si daara yi comprendre nga bëgg nañ dem si dëkkuwaay yi nga xam ne tamit eh, dañoo néew doole ñu def ay teranga mais nag yooyu yëpp si kanam la nekk man loolu laa mën a jàppalee suma dëkk te projet bi incha allah rabi eh, dinañ dinañ ko gis projet boobu la ki nga xamante ne moom la ko yoon ci wax nekk ci yoon bi ñu koy ñaanal yal na ko yàlla may mébét bu mu ci bëgg yal na ko yàlla defara ah, yaakaar naa ne nit ku jubtee lu baax rek dañ ko ci encouragé dooleel ko ci bu baax a baax a baax kon yaakaar naa ne mi ngi ci yoon boobu noonu mais Quench ak waa Bargny Quench buy génn buy bëre Bargny kenn du toog. waaw c'est normal parce eh, fi comprendre nga di leen nuyu ñoom ñëpp du ma tudd turu kenn et champion yi ñoom ñëpp xam nañ seen bopp mhm. même salle bi ñu ngi fi fekkee ñëpp ay champion lañ mhm. comprendre nga tamit may professeur di nuyu borom salle bi Mouhamed di nuyu suma coach sa mhm. ak ki nga xam ne eh, mooy Mamadou Seck comprendre nga ak ki nga xam ne mooy Lamine suma coach sa tamit musculation ma koy nuyu bu wér a wér a wér a wér waaw ñi koy nuyu bu wér a wér a yaakaar naa ne loolu la Quench wax mais dañuy ñëw ak ci moom ci lamb ci lamb ak léegi yàgg na yàggut mais xale bi bëri coow waaw mais c'est normal parce que tey ji ngay gis ni loolu yëpp Bargny ñoom a ko sas. Mhm. parce que tey ji ngay gis ni yaakaar naa mbooloo bi jógee eh, Bargny di dem Esat. Mhm. yaakaar naa après tamit dëkku lebu ñëw benn benn yi ñëw dugg si. comprendre nga ñu dem Esat loolu c'est normal mu jaaxal àdduna. Mhm. comprendre nga mais li ñuy wax si mobilisation am naa ko bu mu doy. te li may ñaan rek mooy ñi nga xam ne mooy waa Bargny ñu gën si jàppaat parce que tey am na ay ay moyens yoo xam ne mooy déplacer mbooloo mi ngeen. yéen mboolem mi ngeen war a gis ba tey gisoo leen ko mu ngi fii ay moyens moo leen tere def. ak li ngay mobiliser si stade bi yëpp. yàlla xam na gaa yonante ba mbo lii des yi moo ëpp fuuf fuuf fuuf man 60 Dakar bu ma ko tegoon fii du doy. man dem naa ba dama naan stade ku bëgg a xam supporter lu Quenche rek boo ñëwee bul laajal neel ana ana waa waaw moo tax moo wax la loolu parce que sax ñenn yi ñenn ay t-shirt yu weex la ñuy sol ñenn yu jaune ñenn yu noir. Uh-huh. comprendre nga mais ñëpp daal dañ gis couleur jaune a fees. Uh-huh. Ah, uh-huh, nga kon mm-hmm. euh, li fiy des. Mm-hmm. maa ngi ñaan ba ñu yëpp ñu jàpp pour mu gën a dem mm-hmm. parce tey ñi ngay gis ni métti na torop ngay am combat di war si def ay 7 millions et quelque mhm. eh, tey eh, bu liñ lay dimbalee yëpp boo ko boolee du mat 100 millions day métti mhm. si mbër mi mhm. da ngay jël say moyens yëpp def ko si lépp pour nit ñi dem mais say moyens moo la ko dul may parce que Quench mbër mu ndaw la mais ginnaaw mbër mu mag la yor non Quench moom mënu ko boole ci ci liste mbër yu ndaw yi ndax yaakaar naa ne kuy jël parti stade kooku nekkatul mbër bu ndaw de waaw parce que Eh, tey li ngay gis ni man suma ambition mooy fi ñoom li Balla Gaye indil moo Modou Lo indil ko Parcelles Eumeu Sène indil ko Pikine Yékini yóbbu ko Joal Bombardier yóbbu ko Mbour man loolu mooy suma ambition pour doon roi des arènes loolu mooy suma ambition mais du ay ñëw daan nii non non te li ma koy may mooy séré xam fi may teg suma tànk te maa ngi si li ma ko may mooy séeréer te xam fi may teg sama tànk mooy moom maa ngi si yaakaar naa loolu la ko wen wax muy liggéeyu roi des arènes tey nga nekk mbër roi des arènes bu jógee jóge Pikine ñoo parcelle lan ngay wax ci loolu en tant que lutteur ak ki ko yor Modou Lo. mais c'est normal parce yi ngay gis nii amul seen. mu koy doon daj na lu ne pour doon ko mais mënu ko doon Modou Lo tamit ñu bëri dañ ñëwoon di doon roi des arènes te yàlla suturaal na ko ba mu indil parcelle. Mhm. li nga xam ne mooy roi des arènes te mbër mu si ne chaque jour da doon wax. Mhm. man suma ambition yëpp mooy indil parcelle roi des arènes. Mhm. te indil na leen ko loolu dañ koy félicité. Eh, di encouragé am seen tamit di ko wax làmb noonu la fi doon daan ay doomi jullit lañu kon moom. kon bu ko nit daanee muy jullit ni moom naka sante yàlla rek te sante naka yàlla encouragé naka yëkkati loo xam loolu mooy sport ñun xamuñu lu dul loolu mhm. loolu mooy sport ba taxit tey dañuy desaat ak moom ci sport ba tey ah yaakaar naa ne bi mu mujjee bëri ak léegi yàggul yaakaar naa ne bëri na ak xale bi nga xamante ni tey mooy Diène Kairé mais ñenn si amateuru lamb yi ne Quench day am difficulté ak ay moromam parce que nee nañ ñu xoolee sa combat ak ñi nga xamante la mooy ay papis général ay mbay juuf ak ñeneen ak ñeneen lamb yooju yàggul da nga nga fay am problème waaw loolu dama siy sawar di tontu man chaque jour maa ngay leeral papi général bi ma koy jël kenn ñemewu ko jël ndax boobu mosul daanu Ndakaaru mhm. comprendre nga Paul Maurice tamit même chose bi ma koy jël eh, dafa daan ki nga xam ne mooy sàkkal daan jokel mhm. loolu moo tax ñu bëre deuxième partie bi troisième bi mooy Tafa Gueye 2 Tafa Gueye 2 boole ma ko sax si suma palmarès mhm. parce que lu tax mooma mag fuuf deuxième partie bi mooy bëggoon a bëre ñaari yoon si at bi moo taxoon ma jël ñu ñëw bëre. comprendre nga mais bu fekkoon ne dafa bëree armée armée daan ko kon du sa du sa maa Tafa Gueye def. te nag grand yi si kaw buñ ma nangul may chance. et faaw ma bëree ñi nga xam ne ñooy mag ñi. grand yi ci kaw ñal la. waaw ku mel ni Yékini Junior Modou Anta Garga Mbossé Lac Rose ñooy dañu war a ñëw ñu bëre parce que moment biñ toll nii man foofu foofu laa toll. Mhm. tegom ay jéen keere suma morom la man làmba ji manu man nangu ne sax am naa si morom parce que si ñi bu ma fi doonul doon xale tamit bokk si ñi si gën a doon xale jéen keere moo mag fuuf loolu mën naa ko témoin mhm. ndax am sa mbaru am jéen keere mu ngi si seedaan naa bu baax mhm. noonu la demee kon am na yoo xam ne ay jéen yéen yéen ñi nga xam ne yéenay dund làmb mhm. xam ngeen ne jéen mosul bare nii kum fi mos a bëreel dafa dox sa kaw jaase la indi mais seen combat yéen ñaar dafa bëri dégloon te trop mel ni ni toll nañ tolloon nañ moment boo xamante ne kenn si yéen ñaar nanguwul woon dem jël risque. waaw affaire bi newul foofu parce que tey ku si ne li nga xam ne mooy sa euh, sa fooru morom a ah, feebaratu sa feebaratu adversaire sa adversaire. est-ce nga ñaari da ngay entraîné teg. boo demee loolu nga yóbbu stade mais boo ko gisul da taxaw deuxième partie bi mooy galan mhm. jéen boo déggee si reporter bi eh, Modou Mbaye mu ngi naan ndax Quench dafa bëgg a jeexal làmba ji. parce que arbitre bi dana mhm. tey dellu gannaaw. Mhm. quatre avertissement la am ma am quatre avertissement loolu bu ñu siy wax di si waxaat. day jeexal émission bi. comprendre nga mooy li ma siy wax lu ndaw la. jéen kee de bëri nañu nee na woon na niil alhamdulilah noonu la ma sama coach doon yebe si yeneen combat ma si am ndam mu yebe ma nii ma niil dama koy sant yàlla jéen lu ma ko waxoon yëpp am na mooy que di ma respecté force te respecté na ma force. kon cër boobu après combat bi dox na seen diggante. déggoo li ma la dina ma respecté force parce que ñëpp jàppoon nañ ne arbitre bu na pire bu jàppantee rek lamba ji mais biñ jëkkee jàpp parce que dañ naka sa loxo buy jóg coincé di la parce que moom gëm na ne li ñu ko doon wax yëpp dëgg la mooy sa loxo bu jógee koñ sa dina la song loo am jog na song naa nga nee dama kaa yegg fu sori moo tax mën nga demal jàngiwaat bëre jën kee de boo xoolee bi ñu jàppantee moom moo ëpp sa position comprendre nga kon après yooyu yëpp ay détails la dee naa deux fois risque ay kale nar a daaneel suma bopp ndax ngémbaam dëgërul mooy loolu mais nag su champion la ma koy encouragé di ko wax ne làmb mu ngi suñu kanam bu ñu waree bëriwaat dañuy bëri incha allah. champion la bu ñu waree bëriwaat dañuy bëriwaat yaakaar naa ne loolu la ko wen si wax ndax dama koy wax ñenn ñi nga xamante ne ñoo dund làmb yaakaar naa ne mbër du jël làmb préparé ko 6 mois wala 7 mois ñëw di sax saaxee combat am mu ñëw di asaaloo combat mais ñu seetlu après combat bi ba léegi yow ak Boy Kéré dafa mel ni dafa am nag mënu leen jiboo après boobu combat ba léegi. non sans loolu loolu Boy Kéré daa am di wàcce doomu jàmbur na jël ñun ñëpp jur ñu. parce moom làmb loolu la ko séddee. booy gere taxaw na fi tale mu ne nañ ma jàngal wax kon de maanaam buñ may jàngal wax dafa mel ni damaa réew. ma ne loolu du ma si tontu loolu bàyyi moo wax doomam rek loolu aw ma lu ma si wax booy gere lu ko nee na wax si man te lu mu wax jégal naa ko mais na yemale doomam ak mbëri nay ñoo yem. comprendre nga man kenn daanu ma bu ma dem si plateau bi di indi problème jéen keere daan nañ ko fi booy keere de si plateau bi di dokone foofu. comprendre nga loolu fi lañ fekk loolu yëpp duñ si wax. comprendre moom na xam ne ne ñun ay doomi jàmbur lañ noonu la demee ni mu yëkkatee doomam nañ koy yëkkatee man de dama kaa jàpp kon suma papa bi ma jur kese du la neen lu ko nee nag na waa si mbër mi am problème xam a baay bu waxee si doomam mhm. kenn amu si droit tontu. wallaay kenn voilà noonu la demee nag dafa mel ni suma waajur moo waa si man rek. noonu la demee dafa mel ni waajuram moo wax ci moom yaakaar naa ne ki nga xamante ni moom la Quench yaakaar naa Boy Kéré la ba taxit xëy bu neeri tàngee rek lu ne mën naa jóg ah yaram bu tàng kenn du ko mais yaakaar naa Quench si bi ma ñëwee bar ñi laataa may toog ak yow romb naa ci mbedd bi am lu ma seqal waxtaan dégg naa seede si rafet seede rafet yi si lan la sa complicité ak waa Bargny. waaw Bargny day jàmm laa jàmm laa seexal sànq avant nga maa jël si man maa ngi doon waxtaan ak waa koñ xam nga damaa sob man waa mbedd bi maa ngi waxtaan ak ñoom ba ci kalandoo beeg fu ne seeday rafet na trop waaw mais c'est normal parce que tey loolu laa loolu laa man fii laa dëkk fii laa dëkk yaroo fi màggee fi mosuma génn ñaari yoon laa génn dem Espagne mais bu dul loolu fii laa juddoo yaroo fi màggee fi dara umpuma fi sama lépp fii laa ko defee comprendre nga eh, bu dee cër joxe naa ko bu mu mët sëkk comme ça dina ko asimal lu rafet waaw ndeysaan soo dajee sama noonu dina wax ci man lu rafet loolu la Quench wax ah mais nga jóge ci lamb nga jóge ci lamb adversaire yi taxaw ci kanamu Quench bëri na ñan nga jàpp ne tey ñooy adversaire yow tey ci lamb ngeen war a mooy li ma la wax rek tey man lamb ji bëri naa si adversaire mais ñi ma situé yéen wax naa leen ko waxati di nga léegi nii nii ma yóbbu ko suñu kër waaw li ngay wax première ma joosi suma yaay mu lekk si ba suur mais am lu tax ngeen bëre loolu leeral ko mbokku internet yi. tey jeune doo suma grand la suma mag la. tey jeune doo moom. moom nga bàyyi ci làmb ji. waaw moom laa bàyyi si làmb ji déggoo li ma laa de. Uh-huh. noonu la demee. moom laa bàyyi si làmb ji Tyson 2 du ma bëri mais képp keneen ku avance am dugg sama kër dama koy jël loolu la ki nga xamante ne mën na ko si wax ah. mais yaakaar naa ni tey lébu solidaire bi ci lébu booloo bi ci lébu ba dañ koy gis complice beeg supporter yeeg mbëri ci biir stade loolu lu ngeen nàmp màgg moom la wala lu ngeen foowee waaw parce que tey ñi ngay gis ni lébu yi li tax moom ñu am champion ñoom rek ñooy bëri seen biir tey lamba ji bu fekkoon ne eh, bëri ñëpp ay bëri seen biir mu ne mais dafa am ay camp yoo xam ne te ku wéet ñu neewal la doole jéegoo ma de ku wéet ñu neewal la doole te lébu yi ñoom dañu seppa dañ tas mais bu ñu boolewee kenn mënu leen noonu la demee. Diène Diouf Kayre lébu la. non moom Diène du lébu séeréer la. Mhm. ndax man bi làmb ji taxawee dama doon dégg ñenn si internet naan ñaari doomu léboy bëri. non non du doomu lébu Diène moom du doonu lébu. wax fa dëgg yàlla jéen du doomu lébu amaana nag si lébu yi la juddoo waaw si lébu yi la juddoo euh, euh, mais séeréer la comprendre nga may nuyu yaayam moom rek moo waxul ma ngay nuyu ma <laughs> maa wajaw maa lay nuyu bu wér moom rek moo waxul si combat bi mais ñëpp wax nañ raka moo entraîneur am waaw mais lamb jee toll woon foofu na xale bi ñu bëreel moo da moo daanan. moment bi daal damaa yaakaar man la faraloon quoi <laughs> ma koy nuyu mais jéen moom du lébu wax fa dëgg yàlla sama jul la juddoo nag yaroo fa màggee fa. Mhm. mais fukki pencee ñaare buñ koy wax moom bokk ci quoi. yaay borom waaw loolu dafa leer loolu jarul laajte sax comprendre mhm. loolu jarul laajte man lébu ci ndey lébu ci baay. lébu ci ndey lébu ci baay loolu la ko wen su wax ah, ba nga xamante ni tey fekk naa ko fi nga xamante ne mooy dëkk. mais nag bari mhm. bari naa ay ay séeréer ñi ay pël. du lébu rek ay ñaan. comprendre nga xeet yëpp am naa si ay soppe comprendre nga euh, ñëpp tout parce que man fu ne ñoo may bëggee comprendre nga mais ñoom tamit xam nañ ne Quench si doomu Lebu la. Quench si doomu Lebu la ko bëggee boobu am na koo xamante ne yaakaar naa sa xarit la sa soppe la yàgg moom depuis Colobane Pape Diagne. waaw loolu dafa leer loolu dafa leer Pape moom. dañuy mhm. waxtaan mais nee na ma ne ko nee ko Pape rek. <laughs> kooku suma nit la suma xarit la ma koy ñaanal li mu bëgg moom moo ko xam yàlla defal parce kooku mënuma waa si moom parce que nit ki nga xam ne daf la bëgg te yàlla rek tax kooku mënoo sori si ay mbiram te moom foofu la toll si man gëj nañu gisee la suma nit la ma ngay ñaanal li mu moo mooy mooy Diagne noonu la demee moo tax ma ne la. Eh. moom li mu bëgg moo nga na mi ngi xaar sponsorisé yi nga sponsorisé gars yi mi ngi ciy gis boppam mi ngi la ciy xaar bu baax. non moom dañ koy ñaanal rek moom xam naa ne xolam Quench si nekk moom dañ koy ñaanal rek lu mu mën ren déwén mu mën lu ko raw. comprendre nga moom bu ma sponsoré bu ma bu ma ko defalee bu ma ko defalul yëpp man fi ma toll si moom rek fu ko raw laay toll si moom yàlla xam na toll si man fu ko raw laa toll si moom yaakaar naa loolu la ko si wax tey moom lañ leen indiloon ah fi nga xamante tey moo di Sénégal Buzz seqoon nag ak moom li nga xamante tey moo di ay waxtaan yaakaar naa na ah ñu bokk teen ñooy laxasoo ay gocc euh, Quench yaakaar naa émission bi neex na tey waaw sant yàlla bu baax sant yàlla bu baax sant bu wér a wér a mais dañuy bëgg nag ñi ñuy xam ne dañuy wax si ñoom ngeen ñu koy génneel parce que tey yi ngay gis daa am ay nit ñoo xam ne dañuy soxna si ñun. si mooy Sénégal buzz duñ bàyyi dara. waaw noonu la demee nag daa am ay ay nit ñoo xam ne dañuy soxna si ñun te fii fiy ñëw def fee nit émission boo leen defee émission bu pare mu dem ba fee ba mu ne la noo jéem a 30 secondes la dese. comprendre nga après nag doo xam li ngay wax nga xamal nit buy sonn si yow da war a xamal ne ne ni ngay sonnee si man maa ngi lay bàyyi xel noonu. Mm. ni ngay sonnee noonu ci xel maa ngi lay bàyyee noonu mais kon si gëj nga géej ah gëj nga géej. waaw non démb rek démb démb démb. kon ne nii saison bi tëj na kon la mooy sa activité instant bi nii. waa su ma activité moom wax fa dëgg yàlla instant yi moom bëri bi man ma ko boolee dara instant bii nii nii nii nii bëri bi man ma ko boolee dara parce que koo xam ne tey eh, adduna moo yaakaar bari ñi comprendre nga département de Rufisque bi yaakaar la comprendre nga tunda yu bëri yaakaar la kon am na yu bëri yoo xam ne yow waratuloo dem di dem géej doo entraîné loolu moom wax fa dëgg yàlla moo tax man su ma làmb damaa bàyyi yëpp concentré wu si bëre mais mbër sonn na laa ilaaha illallaah mbër muy am kenn moom koy expliqué maa ngi toog benn xale muy tafa mbër mais nee na ma mbër na mbër dafa sonn parce que tey coono mbër lan la coonay parce que coono mbër mooy ka gis nga bëre du daara bëre bëre daara méttiwu si bëre dóorante ay coup dóorante ay kurfañ dara méttiwu si mais bëre xam nga lan moo si métti. wàccaay bi non sans wàccaay bi sax. mooy ci bëre teg ci say combat nga pare démarche zéro loolu moo métti si làmb da gis mbër moo xam ne bu ne la suba suba aw ma lu ma ndékkee doo ko gëm. suba suba suba suba aw ma lu may añee doo ko gëm parce que da naan kii liñ koy fay fekk liñ koy fay yëpp làmb ji moo koy lekkaat. moom la Modou Lo di wax ñu ne ko jeexal nga Aïchou Lamb mu doon ne bu doon ne duñ koy dañ koy teg nii kon jeexal na Aïchou Lamb mais Aïchou bu leen am fa lay dugg mbër. boo amul la rek du yomb. man déggoo li ma la man budul woon ak grand Moussa Gueye. budul woon ak grand Moussa Gueye. sama ngeen tekki naa ko seeti la neen. ndeysaan grand Moussa Gueye kooku yàgg nga yàgg nga di wax ci moom gis nañ ni ngeen di dundee. parce que tey kooku dafa doon ma loxo ndejoor doon suma loxo càmmañ nekk suma kanam nekk suma ginnaaw nekk suma nekk. maanaam boo laa ñëw si man moom ngay daj bu bare. comprendre nga kooku man aw mu fayam dama ngay ñaana rek li ba gaa nag ñi may dimbali bari na ñi may jàppale bari na mais mel ni moom yombul waxuma si taraanga bi muy def mais moom xam na man xam naa parce que tey nit bu la féetee fenn fi rek non sas na la te kooku fi ma féete su may waajur sax nangul nañ ne ñoom nangul nañ ne que li nga man si coins mi nit man nun ñii ay ay waajuram sax ñu ko si yow moom. mais loolu cër boobu tey moom lay confiance boobu moom lay féetaliwaat rek di ko waxaat ñi nga xam ne mooy waa Bargny ñoom waa bari ñëpp nangu nañ loolu xam ne kii budul woon a diw mi ngembaam tekki na ko bu yàgg comprendre grand boobu damay dama koy ñaanal rek du ma gërëm fii dama koy ñaanal moom li mu bëgg moo ko xam yàlla defal ka te yàlla di ko may gudd fan a wér loolu laa kay gën di ñaanal yàlla suturaal ko musal ko si cet ak làmmañ grand loolu la ki nga xamante ne Quench wax grand Moussa Gueye ñu nit dañ koy ñaanal yal na yàlla guddal fanam yàgg yàggal ko fi te bàyyi taxawaayam yàgg bu baax a baax a baax ndax yaakaar naa ne boo doonee nit koo xamante ne lay bàyyi xel yaakaar la jël seen bët teg ko ci yow nga doon ndaw di leen dimbali di leen jàppale kon kooku rafet na ñu jàkkaar ak moom fii ci Sénégal besan nuyu ko bu baax a baax baax di ko siyaar te naan ko jàppale ah commence bëri ko ci mbartal la pousse mu dem pousse mu dem ku ci tegul sa heure bi bu la rawee doo ci gaaw a tegaat sa loxo de. ah bon gannaaw bi de teg na si loxo. Ah, comprendre nga ñi teg loxo sax bëree nañ mais dañuy bàyyi ba cappaandaw émission bi rek ñu dugal leen foofu ñoom ñu gis seen bopp rek xam ne ne càppoon eh, nañ si affaire yi mais am naa droit si diye a féete day wàññi wasak ñoom xam nañ grand bi fi mu si man ñoom ñëpp képp ku xam Quench sax xam ngaa gaa grand Abdou Karim si xam na ko ak grand Moussa Gueye loolu la Quench wax mais Quench am wax joo xamante ne xëy na am na mbër yu koy wax ba tey yow nga nekk mbër bu mag am ay mbër yu ndaw du nekk sa ginnaaw ndax promoteurs yi ñu ngi bëriloo mbëri billet ba tey waaw loolu tamit bëri ne woon dañ na CNG mais am na mbër yoo xamante ne loolu dañul ba tey mi ngi CNG waaye tey la ëpp tey jii la ëpp déggoo ma de barki Seydina Mohamed tey la ëpp mbëri ñu ngi dee ay billet mbëri nañ leen dimbali bàyyi leen billet yi ñu leen jox parce que tey du ñëpp du ñëpp ñoo tolloo ay mbooloo. mais loolu seen see xeexoon na ko fi bañ na bàyyi nañ ko. gis nga nit nit mënoo toppa nit ñi naan kaay bëgg ma diw kaay bëgg ma diw kaay bëgg ma da ngay jox mbër mi ay billet mbër mi mooy mujjee obligé moom mbër mi mooy dem jël billet di ko jaayal boppam mais ku war a dem entraînement topp dëkk bi di jaay ay billet kooku sonal nga ka ba mbër yu si bare ñu ngi am défaite loolu moo leen kay teg dañuy xëy jaay ay billet bal tas lépp pour billet yi mais loolu coono la si mbër sa waay coono dëgg la loolu moom wax fa dëgg yàlla promoteur yi koy def maa leen di wax ne ne gis ngeen nit li nga war a lekk dara moom la ko teree lekk si àdduna. lamb mi nga am business ndaxante si suuf. waaye bu baax sax bu baax a baax déggoo ma de mais mbër yi nga xam ne tamit amuñu mbooloo nañ gëm yàlla xam ne ne ñoom amuñu mbooloo te bañ a dem si promoteur bi nakaan am naa mbooloo mën naa jaay bi mais boo demee si promoteur bi naka mën naa jaay trois blocs. mais kon yéen yéen mbëri yéen a dugal seen bopp. dëggal ma yow yaa dugal sa bopp promoteur bi yow yaa ko waaw ah, ma jox trois blocs yaa mais boo waxul yaa moom sa bopp. loolu la ko si wax ah as góor boo waxee rek moomatoo sa bopp yaakaar naa tey yaatal nañ yaatal nañ ah wax na waxtaan nañ ci làmb waxtaan ci leneen ak leneen ak leneen mais euh, projet bi nga xamante ne ku si wax nga ko. ku si day waaj day bëgg a dugg ci politique wala. waaw moom laay wax nii rek dama lay wan nga xoolal sa bopp. sob projet boobu nga wax projet bi da ngay waaj a politique wala. waaw suma mu jox ma léegi non no non non non non. lii ñu ngi def 100 pour cent Bargny si ginnaaw mu ngi nii. lii 100 pour cent Bargny lañ def si ginnaaw. mais xam nga gis nañ fay association yoo xamante ne wala ay projet yoo xamante ne jeexantal bi ci politique la jëm moo tax may laaj. non dama xam ne ne fii suma tournée wu fi. fii ñu ngi si def 100 pour cent Bargny. fii ñu def si. Bargny ma liiral la ko. waaw Bargny social développement projet. waaw borgne social développement projet B BSDP. waaw projet bii man maa ko moom. pour si social lay dox. Mm-hmm. comprendre si social bi may dox mooy dimbali néew ji doole yi si social bi may dox mooy su ma poste santé yi nga xam ne ñoo ne biir Bargny gi ma fexe dolli fa ay salle yoo xam ne ëllëg dañuy am ay don eh, ku yàlla dimbali na ma commencé naa tukki mm-hmm. ëllëg bu ma demee ma ma am ay don yoo xam ne damay ñëw di ko installé suñu li eh, suñu eh, poste de santé yi mm-hmm. parce que man loolu mooy suma ambition loolu rek laa mën a defal suma dëkk te maa ngi si eh, di ñaan tamit eh, ñi nga xam ne ñoo nekk suma ginnaaw ñu jàpp si tamit bu baax parce que loolu doon na loo xam ne suma rêve la te dara mënuma sa maa ngi si am na ay grand yu ne si ginnaaw ku mel ni Abbas ngoom ku mel ni eh, Karim Niang comprendre nga ku mel ni Mame Diagne ñoom ñu ngi si ginnaaw affaire yi jàpp si ah Diop euh, comprendre nga ay ay fay Faye ñooñu xam ne dawuñu dara ay Ofi comprendre nga moo jonn gars yi ñu ngi si biir projet bi. comprendre nga ay mbii ñoom ñëpp ñu ngi ci biir projet bi di jàpp mais nag projet bi incha allahu rabi dinañ defaat benn événement boo xam ne naa leen woo. ngeen ñëw ñu gën a fësal affaire yi. incha allahu rabi lool la ki nga xamante ne ko woon ci wax nee na tey projet bi nga xamante ne teg na ko fi nga xamante ne tey bëgg ko dund ak ñi nga xamante ne moo di waa Bargny yaakaar noonu ne kuy kuy xalam di sa jaar barke ba yaay borom council ko bëgg a bokk ak waa Bargny ba taxit nen bi nga xamante ne mi ngi génne di ko wuti bis bu ko amee dafa ne ñaan na ko yàlla maynees biir biir Bargny ku si nekk càpp soos waaw loolu dafa leer parce que buñ ko defee benn baxal ah. ñëpp duñ ci am ah. dañ koy maynees ku ne si ah. loolu mooy dëgg waaye daal man ma ambition loolu la nan laay dundee ba tabax fi hôpital nan laay dundee ba defi loo xam ne ëllëg dinañ xam ne ne Coins Cat mooy fi mbër mi moo fi def lii man loolu mooy suma ambition échange yi nii nii nii. dinaa dund ba tax fi hôpital dafa am da am difficulté yooyu wala loolu sa bëgg-bëgg kese waaw dañ ci am difficulté waaw c'est normal parce que tey am difficulté boobu noonu. waaw dañ ko am. Hmm. parce que tey ji ngay gis ni eh, eh, néew di doole ñooy faju fii. Hmm. mais ñi nga xam ne dañu am doole. non bu ñu feebaree Dakar la ñuy dem. comprendre nga kon néew di doole yi. mbaa dañ ko boolewul ci Dakar. man jàpp ma ne nañ gis Dakar parce que ah. tey man am na yu bëri yoo xam ne man gisuma ko bari ni hmm. te damay dem di nga gis yeneen dëkk comprendre am na yu bëri booy xool bari eh, camp bee fi ne. Mhm. camp bi Ndiaye Diouf. Mhm. Mada Ndike man loolu laa fi gis. Mhm. comprendre kon bari man gisuma fi hôpital boo xam ne hôpital boo xam ne nii tey. boo fa demee sax fii boo demee fii dañ ne naan demal Youssou Mbargane demal Youssou Mbargane ñu ne demal hôpital Géej demal hôpital Géej ñu ne demal Ndakaaru ku nekk en état war a coucher ñu lay baaganteloo mais loolu dafa métti man loolu laay xee si ma biir dëkk fii mhm. loolu pour mu jox ku fi nekk en état di accoucher ñu yóbbu la nga accoucher normal mhm. man loolu mooy sumay ambition instant yi nii nii nii mhm. projet bi daal man loolu moo ko tax a jóg uh-huh. xool ñi néew doole ëllëg ku amul ordonnance war a faju nga xam ne da ngay am fooy jubal direct. Mhm. nga dem ñu faj la si gratuite man ah. loolu mooy sama ambition yaakaar naa ni mbokk sénégalais loolu ambition bu rafet la ambition bu nice te yan na ko yàlla yeggalil yaakaar naa ne yërmande googu nga xamante ni tey doomu dëkk bi bëgg na ko ci dëkk bi am ko ci waa dëkk bi yaakaar naa ne loolu bu ñu ko si jàppalee teg ko ci loxoom war na dem ndax li may wax rek saa su ne bari ñi dëkk bu mag la kenn mënul tudd Dakaaru Njaajël Jóob te doo ci booleel Bargny waaye tamit li nga xamante yéene bi nga xamante ne doomu Bargny am na ko donte ne ay magam ci kanam ak ñeneen ak ñeneen ak ko yàlla sottal ah. mais laataa loolu ñuy dem sonen fi ma Sénégal Buzz dama lay bàyyi nga tàggatoog mbokk internet yi bëggee ñi nga xamante ñoo nekk ci ginnaaw Quench ndax ñu jàppale mbër sonn nañ waaw Sénégal Buzz ma leen di siyaar di leen ñaanal eh, yàlla yokk ko ba mu dem ba doon télé te chute bi tamit du arrêté. comprendre nga loolu lay ñaan te yàlla yokk ko. Mm-hmm. parce que tey ji ngay gis nii li nga gis nii. in mm-hmm. asi El Hadj Ndiaye mm-hmm. amuñu woon lii. comprendre nga ay Bougane Gueye Dany amuñu woon lii. Youssou Ndour amul woon chute yi. lii léegi la xew. kon tey eh, tey ñooy ñëpp kenn judduwaale wu ko si. kon dañ leen di ñaanal loolu doon yokkute. bu dem ba doon télé. dem ba doon rajo man loolu laay ñaan. mais ñi may jàppale d'accord tey eh, man dama koy wax di ko waxaat ñi nga xam ne ñoo ma siy jàppale bu ma si limee quatre wala cinq foofu la yem na gars yi génne jàppa si te yàlla rek tax parce que tey mënuñu bëri soole ay moyens yu lay yóbbu ndakaaru tey doo ko sax am loolu boo ko waxee sax dañ naan loolu mënul nekk parce que yu bëri ay quelque nit ñoo koy def mais day métti autorité yi may gërëm ki nga xam ne eh, mooy monsieur le maire Guèye Abou Amath Seck ma koy siyaar di ko bëggee di nuyu suma maam maar Diouf di nga wax ne ne depuis nga ñàkk a jàpp ba tey métti na trop bu fekkee tamit da ngay jàpp yëg sewul ma ngay waxaat te boo may eh, bu may def boo may recevoir bëgguma mu jaar si loxo kenn nag ma recevoir man ak yow comprendre nga parce que tey maa ngi la bëgg a seeti ay trois ans ngi maa ngi fa bëgg a ñëw te mënul sotti boo demee si kii ñu ne la jaaral fii jaaral fii mais day mel ni sax coin tekkiwul dara si dëkk bi comprendre di seet yi benn kilifa boo xam ne tey dafa la doon jàppale. war tëgg naa fi làmb ñetti yoon. pour sargal ga mënu ma ko gis. te nit ki ngay sargal day fekk mu yëkk. comprendre mooy nuyu ki nga xam ne mooy Jibril fay jàpp na sama affaire bu baax Souleymane Assou Diagne jàpp na si bu baax a baax a baax. ndeysaan nga xam ne mooy eh, Tamsir Mbengue jàpp na si bu baax Père Ngom nga xam ne mooy eh, Ibrahima Seck kooku xam ne dawul dara si coins lépp ñoo koy defandoo fanaan raj lañ dul def ma koy gërëm di ka wax ne ne grand yow dama lay ñaanal duma la gërëm Ibrahima dama koy ñaanal duma ma la gërëm Idrissa Ba dafa demoon makk ma koy wax mu am jàmm te si yàlla nangu ab ajam ma ñaanal jàpp na si affaire yi Abbas Ngom Birane Ndione ki nga xam ne mooy Mafal comprendre ay ay Moussa oh, ki nga xam ne mooy Mohamed Faye ah, ki nga xam ne tamit mooy Moussa Diagne sama basketteur bi ma koy siyaar musa Samba ñooy di leen ñaanal suturo ak ki nga xam ne mooy fay paay bu ma koy ñaanal eh, di ñaanal grand musa ay soxna ay ñetti soxnaam yëpp comprendre nga di leen bëggee bu baax di waane ne ne gars yi siy jàpp dañoo bëri ku mel ni Ousmane Faye uh-huh. comprendre di nuyu suma coach sa Lamine di nuyu tamit suma coach sa Karim di nuyu suma coach sa Mamadou Seck di nuyu suma coach sa Dia comprendre nga di bëggee mbëru bari ñi yëpp di wax ne ne gars yi nañ jàpp barki Seydina trop ba doon man rek sama làmba dafa dépassé coins lépp bari ñi lay doon parce sama làmb dem na wóobu ma doole comprendre di profité di nuyu suma soxna tamit di nga ñaanal li mu bëgg moo ko xam yàlla defal ko ko parce que muñal na ma fépp xam naa ne muñal na ma fépp relation nañ sept ans sept yoo xam ne lu ne dégg na ko mais muy jàpp a du bàyyi looy xeeñ ci kii amul dara mais lépp li ma gën a marqué ci moom mu ne ma boo amoon ay saxet saa yow loolu doy na quoi <laughs> may nuyu di ko ñaanal à ah, suma goro yi tamit di leen ñaanal bu baax mais dama lay wax ne ne grand mbër metti na bëre hmm. barki Seydina Mohamed bëre metti na di nuyu suma maam Baye Daara Gueye di nga ñaanal yàlla bàyyi ko suñu kanam hmm. capitaine u bëri yëpp du ma si tudd turu kenn mais nañ gën di jàppaat capitaine u caara yi comprendre nga hmm. ma leen di ma di ñaanal dem naa fa ku mel ni Pouy Mbaaw ku mel ni Ab Sambo ku mel ni eh, Njaga Jeng comprendre ku mel ni Papa Ndoy ñooñu dama fa dem ñu defal ma teranga si combat bi ñooñu mënuma wax te ma leen tudd comprendre di nuyu mbari bëri ñi yëpp. ndeysaan di wax ne ne Quench ñi koy jàppale bari na. comprendre nga bari na lool lool lool mais biir bari ni lañ jàppaat di nuyu ki nga xam ne tamit tëngeej muy Pape Sow. waaw Pape Sow doomu Ndeye Waly ma koy nuyu bu wér. di ko wax monsieur le maire gënal jàppaat moom Pape Sow. man monsieur le maire laa koy woowee. kii nga xam ne tamit eh, mooy Mamadou Sy. Mhm. daf ma defal taraanga ma koy ñaanal li mu bëgg moo ko xam yàlla defal ko lu kawe njortaa amiin ak ki nga xam ne mooy Maysa ak ki nga xam ne mooy duut duudu Samba ma koy nuyu bu baax a baax da Daouda Samb waaw mhm. nuyu bu baax di ko wax ne grand kontaana si yow mhm. nee na ma fii ba ngay tabax R plus 2 mhm. R plus 5 dootoo jënd suuf may jël sama camion chargé lay suuf ma ngay ñaanal moom taraanga boobu yàlla defal ko quoi parce que tey kon si amul dara d'accord waaye li ka làmb may sante naka yàlla bu baax. Mm-hmm. di nuyu suma gaayab di nuyu suma yaay di nuyu suma pap mm-hmm. di nuyu sumay famille di nuyu sumay am di jàmm yëpp. Mm-hmm. di leen bëggee bu baax baax di nuyu suma ñi may ñaanal yëpp. bari ñi képp ku si ne maa lay nuyu sa tur ak ku ma limul nga xam ne nit moo matul di nuyu Père Taha Samba tamit ma koy nuyu bu baax baax. waaw mais gars yi nañ jàppaat affaire yi métti na torop jeex na gars yi nañ jàppaat affaire yi métti na torop mbokk internet Sénégal Buzz yi di leen bëggeewaat bu baax a baax ah di leen kontaane yaakaar naa tey ki leen indil tey yaakaar naa ne namoon ngeen ko ah, ki leen indil tey ñu bëri namoon nañu waxtaanam ndax dañ koy gis mu ànd ak mu supporter mi ñëw stade def lu neex bëre daan ñibbi tey waa Sénégal Buzz ñoo ànd ak ñoom fas yéene waxtaan ah su ma maman ñaaña fay dama ko fàtte woon maman ñaaña ma fayam ndeysaan ko doom saa taxul ma fay ndeysaan ndax maman Ndeye Seck seen fay. ndeysaan comprendre nga. ah pharmacie bi nga xam ne nii mooy pharmacie Abdourahmane. Abdourahmane may ñaanal suma mère Aminta. ma ngay ñaanal li mu bëgg moo ko am yàlla defal nag defal ko bu wér a wér a a wér. comprendre nga tey ñaari maire yooyu ñetti maire yooyu man aw ma seen fay. ndeysaan Aminta. aw fayam mère Ndeye Seck aw ma fayam mère ñaaña moom su ma yaay la moom su ma yaay. mention spéciale pour moom ma doon su ma machine rek si lépp lu ma bëgg si garab. confirmé uh-huh. bu ma demee dama koy jël. Uh-huh. c'est gratuit. te li may jox si ay garab. li may wax maam bëggee man naka témoin. day ëpp cent cinquante mille da koy ëpp. mais nit ku la taxu foofu kooku boo amee yu mel nii jot na nga sant ak gërëm ko. wallaay sax yaay booy. lépp loo ma lebal ke ne naa la ko fay te xam naa ne saa du boor si yow. mais man góor laa ku ma dóor rek non rey nga ma ko waa man ku ma ji teraanga rey nga ma. ndeysaan ku ko ji teraanga rey nga ko. ñaanal tamit ngeen yokk bu yëkk. amin amin suñu caméraman bu ñaawal bi tamit. comment Aly Gueye. Eh, eh, sama doom day Aly Gueye ma ngay ñaanal. moom mi ngi bëgg moo ko xam yàlla defal eh, yow moom du la ñaanal dama lay bàyyi yàlla suñu borom rek. yow suma mbokk nga. waaw loolu dafa leer parce que yow am na yoo xam ne kenn du ko wax. wallaay di ñu fekk ñëpp. di nuyu ñëpp mhm. di nuyu jip Mhm. waaw di di bëgg gars yi ma fekk salle bi yëpp fii su ma mbokki mbër su ma àndandoo en mhm. face ba tey ñoo fi ne mhm. comprendre nga di bëgg ñëpp di siyaar ñëpp di la wax ne amal jàmm bu la dara metti amal jàmm bu la dara metti loolu la ki nga xamante li ku si wax la ko ba taxit dama koy delloowaat li nga xamante mooy gërëm gi delloo ma ko parce que dama naan boo baaxee rek mën a ànd ak ñëpp ah. la nga xamante la wax nga ko léegi suñu maman boobu lam la lebal naa ko Baye Fall baax la yaakaar naa ni mbooloo mi lay topp rek am nga loo wan wala am na loo dund ak ñoom ba tax ñu mën laa topp li may wax rek loué siège yomb na Quench loué basse yomb na waaye ñi la ciy toogal ay jafe. naa ne boo fi ah. dem benn kër grand rek. Ah ah. kooku yow yaa ngay sant gërëm ko. ndeysaan comprendre nga <laughs> muy seewu ki nga xam ne mooy Ousmane Diouf. projet bi ñu ngi waaj lancement bi. bu bi ñëw incha allahu rabi. grand yi ñoo ne si ginnaaw. ak Daara Menga ñooy ñoo ne si ginnaaw projet bi. Eh, di ma gunge si lépp. incha allah waaw te grand Rahman Diouf dem na si poste sant bi yëpp xool xam ne ne fii laaj na liggéeyaat ñu ko ci dara li ko yoon si wax la rek ñun doomu dëkk bi ñoo mën a defar dëkk bi bu ñu toogee di xaar gouvernement yaakaar naa dañuy tardel suñu bopp dañuy gën a tardel suñu bopp ba tax na li nga xamante ne mi ngi ci yoon boobu may jox conseil ñeneen mbokki mbërëm yi nga xamante ne ñoo nekk fi mu niveau bu mu nekk nañ xool ci moom bàyyi xel ci moom jéem a def li nga xamante ne moom la mbébét ah parce que yaakaar naa ne lamb affaire la gox a ko bégge bu baax du nuyu Ablaye Ndiaye bég naa bu baax a baax a baax si yéen tey fii laa ñëwoon bari ñi gars yi sama gars